àdduna jeex na bànneex ba jeex na kii dudu ko ñun waay ngir xale dem na waatu baa jooy waa ngi na ngi jooy waa subi jooy ngir xale dem na daaru dem na baysal dem na jiili dem na xale dem na